féete ci euh, kër sëñ Ahmadou Mokhtar di doom ci sëñ Abdourahmane Boussa di sëddu ma Massamba Kandi Boussa tey nag bis bi nga xamante ni si fan yëpp gis ngeen ñu koy waajal ci réseaux sociaux yeeg fépp muy bis bi ñuy màggalal sëñ Massamba Kandi Boussa bis bu ko sëñ Touba Xaadimal Mokhtar wane woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye itam bis bi jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy ñaanal nit ku baax rek ba tax ba léegi ñoo ngi koy dundal ci al alxuraan ak xasida ak euh, matu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak bernde ak yéti kon du ma daal def lu bàyyi si Amadou Mokhtar mu daal di ñu dugg ci li ñu war a waxtaanee dëgg-dëgg sëriñ bi bu siyaara ñoo ngi lay si bu baax di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi lay fay nuyoo di leen ziare bu baax a baax di ziare mbokk yi jëkke ko ci yéen ñëw waa presse bi eh, Rafah TV Média Actu Kajoor ak Tawfekh itam ñu leen di sant leen gërëm ci yitte yi nga xam ne gis nañ ne da koy taxawee jamono bu nekk lépp lu jëm ci kër gi ak lépp lu jëm ci yoon wi lépp lu jëm ci xew-xewi yi mooy yoo am solo nag loo xam ne jamono toll ñëpp xam nañ ne eh, production médiatique bi ci àdduna bi dafa jaxasoo autant nag ñu nekk ci sable eh, chimal di indi ay production yoo xam ne ni dara laaliwu ko ak suñu diine suñu ngëm-ngëm ak suñu pas-pas autant que ñu soxla organe yu mel ne yéen yoo xam ne day ñëw di indi ay production yoo xam ne day euh, dëgëral suñu pas-pas gën ñoo daaj di yokk suñu passé kon cant ke ngërëm bi ñoo ngi koy tàmbalee ci yéen ñi nga xam ne def ngeen activité woowu di ci toppaat di sant yàlla bu baax mi nga xam ne boolewaat nañ ñu dikk fii ci Daaru Xadim daje fi ak mbokk yeeg taalibe yi ci kilifteefu sëriñ Alaaji Fàllu Bousso moom sëriñ Cumbuleen muy xalifa kër gi waaye fii ci Kër Abdourahmane Bousso it Euh, lenn ci kër Sëñ Abdou bu Bousso yi euh, te ki nekk ci bopp Sëriñ Cheikhouna Bousso Sëñ Abdou Rahmane yàlla dogal moo xaw a nekk bitim réew jamono ji ñu toll waaye ci kilifteefu sëñ Massamba Bousso mi nga xam ne mooy rakam di teewe teewaay bi ak mboolem ñu ñu seqal Sëñ Abdou ci góor ak jigéen euh, mu mel ne tey nag fii ci Daarul Xadim day dëkk boo xam ne dëkkum ndigal la dëkk la it boo xam ne sémbub Cheikhul Xadim la ndax dëkk la boo xam ne ci Euh, kilif euh, ci ci ndigalu sëñ Touba lañ ko sose sëñ Massamba Kanni sos ko ci ndigalu sëñ Touba sëñ bi euh, waxoon ko boo xoolee dañuy wax ne sax dëkk bi ci sabab yi tax ndindi ak tindoodi ak daarul karim gi am ca la ndax bi sëñ Massamba Kanni laaj ndigal ci sëñ bi ku baax ci ca njaarim ngir bëggoon a dem naawel fas yéene ànd ak fere yi ngir féetali fa soxna si ci ni mu ko namme woon ak nekk fa ak ca la ko ku baax ki jox ndigal ne ko na ñëw fii ci Touba woolu woolu ko nag sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëñ Massamba Mbacke te kenn ku ci nekk ñoom mu am tegtal yu mu la tegtal ne la su ngeen demee ci sama dëkk ba nga dànd ko boo doon seet sax ci kiimaane sëñ bi ñetti dëkk yooyu booy xool boo ko doon mettre daanaka ak Touba jumaay Touba ji ak fii dañuy tolloo nga xam ne mag ñu kon wàllu géographie sax ñu ko xamoon lañ ca jooju jamono nga xam ne man mii sama waajur day nettali ne daanañ bëri bëri nga bëri comme ndox jële ko ca jàjji faal ca fa kër Sëriñ Tuubaa ga ba fi ngir ñàkkoonu ndox kon jaar ci jamono jooju te loolu gannaaw bi ñu sancee dëkk bi ndax sanc nañ dëkk bi eh, lu mu gàtt gàtt daanaka ba am xam naa ne loolu fukki at ak moom mu dooru ñëw jamono te moom loolu mu ngi koy fàttaliku kon loolu da lay xamal ne rek pas-pas ak dëgër moo sancoon dëkk bi njaboot gi nag dajale li fi fàttali si Masamba Kan yi noonu eh, ngir lenn rek li alxuraan jàngale fa na naqus alayka min anbaa'i rusul maa bi sabita bihi fuaadak euh, euh, récit maanaam histoire yu jàll yi nga xam ne dañ koy faral di nettali euh, dañ koy def ngir nit ki dëgërale ci suñ pas-pas xam nga boo seetloo fi mu ne suñ Masamba Kanni moomu da ngay dégg yi yitte yi ju rëy ji lépp lépp lépp boo ko seetee bi muy bi muy bi muy bi muy sañc dëkk bi amul ñeent fukki at nga xam ne tur bi da koy dégg sax def na booba mag la moo xam ne waaye daanaka ci fanweeri atam ak nàngam daanaka li mu réalisé lii lépp ci gën a muy lu ma la gorub dëkk bi mu koy def ñeent fukki atam matut loolu nag jàngat yi ñu war a def mooy pas-pas ak ak ak ak ak ak ak dogu lu nekk ci kanamam mën na koo daañu li arab yi al kullu yatakassar amaama wal irada nit ki su pas-pasam dëgëree lu nekk ci kanamam rek mën na koo fël mu daanu njaboot gi nag dajwa di ko fàttaliku waaye mu taweek événement bu siiw bu ñu nettali ci wan goo xam ne Euh, ku baax ki wanoon na ko euh, jëmmi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam boobu itam ci yéene jum amoon ci dem makkatal mukarrama gannaaw boobu mu am cam ngànt waaye ci cofeel googu euh, ku baax ki itam wan ko ci kasu boo xam ne nii loolu mbirum biir la njaboot gi nag di ci sant yàlla ak di ko ci fàttaliku waaye nag li ñuy gën a nekk jubluwaay bi dëgg dëgg dëgg nag mooy taxaw taxawaayam fàttaliku ay jëfam ak i jaar-jaaram ba ñun ñi nga xam ne jamono bi ñu toll dafa li wax référence dafa jeex daanaka nit ñi perte ko ñu xam ne lii ki ko réalisé la ndax nit ki moom loo tële tële buñ ne laa lii sa maam ko def nga war a xam ne lu manu la ay xayaal du ay maanaam ay ay ay retours ak ay euh, nettali yoo xam ne ni dafa yàgg wala dafa nekk loo xam ne lu lu ñuy kii waaye ki ko réalisé moo jur sa waajur ñoo gis ay ay dem loolu dana tax ñun ñu xam ne lii euh, dans dans possibilité la nekk nekku ci dans possibilité te loolu dana tax nit ki gën a jàjjuwaat góorgóorluwaat ren jii nag mu am lu particulier lu am ci màggal bi ndax dafa dafa dajeeg ñu war a e, tegum xeeru e, jumaa ju mag joo xam ne fii lañ koy defee ci dëkk bi ci Daaru Xadim di ko defar si Massamba Kanni te loolu it muy loo xam ne du mën a doon lu jaas ndax Daarul Xadim ñu bëri sax Xadim lañ defoon ne moom la ko tuddee waaye Daarul Xadim la sëñ kërug sëñ Tuubaa la ko tuddee loolu am na xasida bu sëñ Massamba e, def tudde ko euh, euh, ca arafu daarul xadim di ci roy sëñ bi ni mu daan defee ci xasida yi la ko tudde bi mu àggee ci xarfu xaa ci lañ xamee ne ci daarul xadim kër sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa nag jàkka dafay la nga xam ne mënu faa ñàkk ndax waccal buyuti kullaha masajida sëñ Tuubaa moom fu mu mës a nekk euh, jaamukaayu yàlla moo fay taxaw kon jumaa ñu mag ji nga xam ne dañ ko fas yéene taxaw si ci daarul xadim mu tàmbale fa jox tey ren bis bi beneen wàccuwaay boo xam ne tax na njaboot gi ak taalibe yëpp taxaw sëñ Masamba Kan defoon koo xam ne nag euh, ku ku ku gàttu fan la waaye yitte ji dafa réyoon ndax koo xam ne ci sa jamono nga góorub dëkk ci kanam ci ci ci ci nekkuwaayu sëñ bi ca jamono yooyu ngay xamee ne ci comme ni ma ko at yi tax koon a bari waaye pas-pasam ak ak yitteem juree ci sëñ Tuubaa ak yitteem euh, am naa bayte mu muy wax woo xam ne bi muy ñaan yàlla dana ko képp ku du sëñ Tuubaa rek maa ngi ñaan yàlla nga teg ma ci kanam waaw loolu pas-pas faddilan ala siwa zaatil xadim waaw euh, ku sëñ Tuubaa daal la moom nga xam ne kooku moom mel ne moom dafa dafa jomb moo tax danañ faral dégg ci histoire ñu ne sëñ Massamba Kanni man laaj rek ci sama kàddu njaboot gaa ngi bind waaw la woon ndax euh, ci yiñ gis bari na ay xasida yu mu def xam na euh, man zan na xasida boo xam ne da koy def ci tawxiid surtout ci wàllum gëm-gëm def na xasida boo xam ne da ko da ko jëmale ci jaayante loolu am solo la ndax euh, terme yi mu sax day tax na nga xam ne ñoom kuy def euh, li ñu doon def bu seen logique xamoon la lu ñu xam la boo xoolee ci xasida gi euh, mi ngi ko wax mantiqat yi kal jismi lil baaxil xadim fi sunnatil muxtaari bil xaddil xadim fi sunnatil muxtaari bil xaddil xadim nga xam ne moom bi mu jébbalee logique am ak ak yaramam ak xalaatam lépp sëñ Tuubaa dafa wax ni ñu koy def dama damaa jébbalu ci yàlla tege ci sunna Yonent bi waaye di ko àndeek li sëñ Euh, boo demee ba ci biir xasida gi sax gën na koo leeral di wane ne euh, fi yëf yi jaar euh, yonent bi la fi yàlla wàcce woon muy xamle lu baax ak ak lu bon di digle lu baax di tere lu bon nee ba mu fi jugee nag Sëñ Tuubaa ñëw wuutu ko ci ñoom waaw nee na nag bi loolu amee mu ne fa ajabtu wa ajaaba xëy nee na maanaam bi loolu amee rek man damaa daal di wuyu damaa gaaw gaawantu boo déggee arab ji fa ajabtu ni mu wax da nga xam ne dafa wax ne moom bi ñu déggee wootab sëñ bi rek dafa daal di wuyu ji nee na ku dul man it dafa daal di wuyu ci wuyu ci wootab sëñ Tuubaa boobu mu ne rek man loolu sant yàlla bu rëy rëy rëy ñeel na kon bind na ci wàllum euh, tawxiid gëm euh, bind na ci wàllum mubaayaxa jaayante wàllu istixfaar tam jéggalu suñ borom ay munaajaat yoo xam ne yu bëree bëri def na ci am na ci yoo xam ne ba léegi da da nga dégg fu ko fu ko junje waaye gisagu njax bi léegi nag honnêteté intellectuelle dafa du nangu mm. masalan am na xasida euh, ay abiyaat rek woo def Cheikh Ibrahima Fall mm. gis nañ lettre bu mu bind maam Cheikh Ibrahima Fall di ko wax ne ko ku damaa jëm eh, ku baax ki damaa woolu ca Mauritanie bokkoon na ci ñu demoon Mauritanie mu romb Cheikh Ibra eh, Ndar wan ne ko nag li ma jëm ci eh, woote suñu biir du ma mën a jaar fenn moom waaye am na bayit yu ma defoon ci yow bu ma yàlla defee ma dëpp xëy na dinaa la koon xam nga kon loolu existence am xam nañ ko waaye comme gisaguñ njaxu xaside bi dañ dañ dañuy dañuy gëstu ñu ngi koy topp di ko gëstu bis bu seet léegi-léegi nga gis am nay muraasalaat yu bëri yoo xam ne dañ koy gis ku ma ne Cheikh Omar Diop euh, maam yi suñ bés antañeg mii itam gis nañ ay ay muraasalaat yoo xam ne defoon na ko suñ dàll faali jën yoo xam na ko ci euh, gis nañ it ci mbindum loxoom euh, ci niveau niveau déet itam ci mën a xam xam nga muxtasar Sayxul Xaliil ñun ñëpp xam nañu ci mag ñi daanaka daytal la ku ca àggoon boo ko teg léegi nga xam ne dañuy jàng ñaari téere ñett rek daal di koy jël waaye boobu mag ñi bala ñu ci mosaan def da ngay seen ndax mbind mi mbind rek niwo niveau bi nga ko bindee gis nañu muy bind ku baax ki ne ko euh, jeexal naa Cheikhul Khalil euh, ci sa ndimbal ak ci sa barke waaw ah, ndax ku baax ko yabaloon booba ngir mu joxoon ko ay téere wax nañ ne Cheikhul Khalil ca la bokkoon ngir waxoon ko mu jàngi ko ci fóoreeb njàmbur bee Mor Galaay Jaw mu siiwoon moomu mu jàngi ko ba mu àggee bind na ci loxol boppam wane ne àggale naa sama alliwoo fii di fa xaar sa ndigal kon ay wane na ne bàyyi na fi ay ay production scientifique yoo xam ne njaboot gi ñu ngi ciy dajale macha allah si Masamba sëñ Abdou Rahman gëstu am na ci lu bëri loo xam ne rottal na ko ci am na ci yoo xam ne xam nañ ni am na waaye teewut euh, comme li nga xam ne rek mag ñi moom léegi-léegi euh, dañuy dal ñu dama koy wax lu ñu yor ci desiti mag ñi dañ ci xaw a xaw a fiire fiire fiire ba far dañ koy def bu barkeelu ba léegi léegi jot ci sax xaw a def waaye rek teewut rek njaboot gaa ngi def ay maju daal yu bëree bëri nga dajale jërëjëf sëñ Amadou Mokhtar Bousso ci waxtaan yu amam solo yi xam naa suñu dernière question rek mooy looy dénk ndaw ñi ñu fonkaat mag ñu am ndax boo demee eh, ci réew yi ñu wër yëpp dañu màggal li wax seen i héros nag dañoo bëri ay héros kon lan ngay wax ndaw ñi ñu fonkaat li ñu am rek waaw xam nga loolu eh, insaniya maanaam eh, l'humanité ci boppam moo ko laaj doomu aadama day am repère xam nga ku mën na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi mat ñëpp bu ko sëriñ suñu borom naan toppal yonent yàlla Ibrahim repère la koy jox waaw euh, si Masamba kenn mii ay waxam ko soo soo ci déggee maa ngi koy wax euh, bil xaddil bil xaddil bil abdil qadim maanaam royuwaay royuwaay googu nag si Masamba kenn doon waaye ci ndaw ñi la ko gën a doon ndax xam nga ñun nit bu nekkee sa maam rek da ngay am ten da ngay am souvent tendance di di ko jàppe mag mu magee magee magee waaye moom référence ndaw ñi la ndax moom euh, juróom fukk at ak nangam daanaka la la dund tey wax naa la ne bi ñuy sañ sañ ci dëkk ba ko ku baax ki di yebal muy dem poroxaan di feeñali barabu a jaara bu yooyu yëpp ci ci ci ci li ñuy wax euh, jeunesse la ko defee kon kooku da ngay xam ne euh, borom ju rëy la woon boo xoolee daanaka ci Touba boo rëccee tuuti jumaa ji ba fii ngay taxi nii daanaka ñu ëpp ci foofu moo ko kon fii daaru Njaay nekkoon lenn ci fii nekkoon ci Gédé fii Hizbut Tarqiyyah nekk loolu yàggut moom ba daaru Naxin fii euh, xaali yi nekkoon ab taaw ma ko joxoon Sëñ Fallu ba fii koo xam ne ndaw nga woon xam nga réaliser lu toll noonu ca jooju jamono da ngay xam ne kon nekk ndaw texuta teewuta am am lépp su ko defee ndaw nag moom euh, la ci suñ ci waxoon rek moo ci am ndaw lépp lu mu def lu sàkku xam-xam maanaam defalu ko boppam waaw nit ñi dañu sàkku xam-xam buñ sàkkoo xam-xam sàkku ak njub xam-xamu njub moom mooy yóbbalu ndaw leneen li ñuy wër di ko dàq lépp muy bañatum àdduna bi euh, dara rëccu ci waaw dara rëccu ci te ku dox tuuti di ko xam kenn ko ne ay jamono tuuti ci sa gannaaw lu bari nga doon xalaat def ne boo ko jotee sa àdduna njëkk tey bi nga ko jotee xam nga ne àdduna bi ndax aslan àdduna la yàlla dogal na kenn da ko du jot waaw lu doy nag li ci nit am rek da koy doy loo ngeen jëf mbokk yi loolu yi lañ leen indiloon tey ci kër Serigne Ahmadou Mokhtar moom Serigne Abdourahmane màggalu sëñ Massamba Kanni Bousso édition 2022 ngeen ci ànd ak seen télévision Rafah TV Tawfekh Production Mbacke Kadior TV ak Mediaactu kon wéy leen di ñu gën a topp ci seen yile incha allah lépp luy xew ci bis bi daañu leen ah, ñu taxaw ak eh, sëriñ Seydina Bousso nag bokk ci kilifa yi nga xamante ni si ñoo yore waañ wi ci wàllu bernde yi lekk geeg naan geeg yu sedd yeeg eh, lépp lu ñuy bernde ab taalibe ah, sëñ Seydina ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ñu bala nga leeral rek liggéey bi nga xamante ni si moom la ñu fekk nga ànd koog mbokki yi waaleykum salaam wa rahmatullah cheikh bi ñu ngi a di rafetlu it seen teewaay ak it euh, mbokk yi nga xam ne teew nañ yëpp ci wàllu presse bi ndax wax dëgg yàlla mel na ne képp ku woote ñu fekk si la ci sa dëkk rek yaakaar na desee la too leen dara kon ñu ngi leen di sant ci loolu bu baax a baax tey nag ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne euh, wax dëgg yàlla mu yemoog bisub màggal gi di màggal ko sëñ Massamba Kanni ñu di ko màggal ci bis bi nga xam ne euh, ci la ko Sayxul Xadim wanoon yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon dëkk boo xam ne it Sëriñ Tuubaa moo ko joxoon ndigal ci mu sanc ko mu sanc ko te booba ba léegi mu waxoon ko ne boo fa demee lépp dana la fa fekk te gis nañ ne wax dëgg yàlla mel na ne boobaak léegi lépp ñëw na mm. euh, tey nag ñu teew fi ci màggalu sëñ Massamba Kanni gi nga xam ne ñu ngi ko doon waajal ci ay euh, weer yu bari ba yàlla dogal mu doon tey ñu tànn ci benn pàcc muy ci wàllu waañ wi ndax it yaakaar naa ku ne màggal da nga wax bernde te wàllu bernde it boo jigéen génnee waañ yaakaar naa bernde du mën mm. ñu nekk fii ci wàllu waañ wi nag ci fi ñu doon waajale xéewal yi Euh, ànd ceeg mbokki taalibe yoo xam ne farlu nañ ci lool ñu doon ay jàmbaar yoo xam ne ku ci nekk walanteeru na wax dëgg yàlla ñëw na ba ñëw jotee ne ci liggéey bi di ci jàpp di ci def sa doole di ci def sa alal wax dëgg yàlla nga ni ngeen ko gisee nii ci ginnaaw mu doon euh, organisation boo xam ne taal nañ fi lu tolloog ñaar fukki mën ak juróom yoo xam ne dañ koy waajale gan ñi yoo xam ne dañ ko defar ji defarin wu mucc ayib am na ci togg goo xam ne dañ koo euh, def ci ginnaaw ngir waajale ko mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ ko tudde muy waa kër sëriñ Seexu Buso muy taawub sëriñ bu bi ndax ren yàlla daa dogal euh, màggal gi daana am waaye mel na ne dafa amuk coppiku ren ndax li ci yokk mooy ren dafa war a ànd ak maanaam tegu xeer woo xam ne warees na koo def muy jumaa joo xam ne dañ koy defal sëriñ Massamba Kanni ci dëkk bi ñu am ci ndigalal sëriñ Mountakha ñu teg xeer wi tey boole kook màggal gi loola yàlla dogal ñu koy organiser ci pénc mi amit leneen loo xam ne ak coppiku la muy daan nañ ko def waaye mel na ne conférence ren lañ ko njëkk a tàmbali biñ ko tàmbalee it war koo def ci ngoon gi yàlla dogal ñu tudde ko waa kër sëriñ Cheikhou Bousso nga xam ne mooy taawub sëriñ Bousso bi di magi sëñ Massamba Kanni loolu moo waral daanaka euh, lii ngeen di gis lépp rek muy ci ay bernde ñu koy waajal ngir gan ñi nga xam ne ñoo teew ci bis bi ndax boo wootee képp ku la fekk si jàpp naa ne mënoo koo fay kon yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne que moo gën a jàmp ci waañ wi nii ànd nañ ko it ak i kuréel yoo xam ne daanaka ay commission lañ muy mbokk yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi ci genn pàcc mm. day mel ne dañoo nekk ci wàllu waañ wi tey waaye it buñ demoon ci beneen côté yi danañ fekk mbokk moo xam ne mooy wàllu googu ndax buñ buñ buñ demee ci sëñ Baye Dame Bousso mi nga xam ne mooy président jiite mbooloo mépp ginnaaw bi nga xamee ne waroon nañu njëkki nuyoo bi ci xalifa sëriñ Massamba Kanni bi nekk muy sëriñ Alaaji Bousso Cumbuleen di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi gën koo dëgëral ba li nga xam ne yéenee na koo liggéeyal maamam ju baax ji yéenee koo liggéeyal Sayxul Xadim suñu borom kattanal ko ba man ba mu ko ca nam ware la liñ doon wax léegi comme sëñ Baye Dame mi nga xam ne moo jiite mbooloo mi buñ demee ca moom danañ fa fekk commission yoo xam ne ñoo yor wallu organisation beeg ñii ñoo yor wàllu waxtaan yeeg ñii ñoo yor wàllu baas beeg lépp rek ku ci mel ne sëñ Mouhamed Mbacke wala ku ci mel ne sëñ Maam bu Bousso ak ñoom sëñ bu Jili Bousso sëñ bu Bousso ak mbokk yëpp nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu ànd ceeg ñoom. wax dëgg yàlla sëñ Seydina dugguma la foofu. Mm-hmm. liggéey waañ wi day benn wala dañu ko waa liggéey waañ wi nag fi mu ne dañ cee ànd ak daayira yu baree bari yoo xam ne mooy daayira yi nga xam ne ñoo féete ci dëkk bi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne ñoom ñoo fi féete ak ñi nga xam ne dañoo aju ci kër gi te yàlla dogalul ñu nekk ci dëkk bi ak ñoo bokk waañ wi ak mbokki soxna yi nga xam ne maanaam dañoo bokk ci kër gi eh, sëtoo fi wala ñu doomoo fi ñu maamoo fi ak mbokki góor ñi ñoom ñëpp ñoo àndandoo liggéey bi song songandoo ko def ko wenn yoon macha allah jërë jëf mbokk yi kon nag dégg ngeen sëñ Seydina Bousso ci kàddu yu am solo yi mu yëkkati euh, bernde yi nag euh, noppi na daanaka murit yaa ngi ci mbokki taalibe yaa ngi ci waaye fàttewul suñu yaay boo yi nga xamante ni si kenn mënu leen ci kon lépp loo xamante ni si def ngeen ko ci rek yal na leen ci suñ borom fay euh, jërë ngeen jëf kon ñu ne ci liggéey bi ba allah jaa ngeen jëf ok jërë ngeen jëf yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen jaar comme ni ñu leen ko waxee woon ci suba ba léegi ñoo ngi fii Daaru Xaddim màggalu sëñ Massamba Kandi Bousso édition 2022 waaye nag eh, ñu nekk fii ci kër sëñ Cheikhouna Bousso moom it di kilifa ci eh, dëkk bi di kilifa ci kër gi ñu bokk mu nuyoo sëñ bi Bousso yaaram ñu ngi lay ziar bu baax di euh, leen nuyu. waaleykum baax ci leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ñu fi teew euh, di sant mbokk télé bi yëpp di leen jàll jàmm. ñu ñëw fii ngir dundal bis boo xamante ne si. la sëñ Tuba ma ne woon sëñ Masamba Kanni Bousso yonent bi waaye nag ñu koy dundal ci sunna rek ci alquran ak xasida ak jotaay yoo xamante ni si jotaay xam-xam la ak ñaanal nit ñu baax ñu ci jaaroon euh, lan nga ñu mën a leeralal tey ci bis waaw xam naa tey sax day amoon naa ci wax waaye nag bis sëñ Masamba Kanni moom dama ci am ngànt ci lenn ndax moo da ko laaj moo tax ndax mu doon fi lenn lu ab talibe comme ni ko ñëpp doone euh, waaye li ci mën leer daal euh, mooy euh, bis bi nga wax ci guddi gàmm ci la ko suñ borom suñ suñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wa noonu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ci xamante ko amoon ci ak ma yëgu bi yëgoon ba jàpp ne war naa mën a demal boppam foofa ci ni ñu baax ñu Eh, bi mu tàggoo sëñ bi nag eh, ba génn guddi eh, daje guddi gàmm sëñ bi wala ko ci nekk mu toog sëñ bi daal di toog la daram jéegte ay xasida ba mu yàgg mel na benn mag yaatu mu penku mi dana xebeet mu gis ni yoon Rasulullah sallallahu alayhi wa jóge ci ba fa mu tëdd di dox tànkam ba ak ci euh, xaadimu rasuul sallallaahu euh, foofu nag ñu saafante fa jàmmante euh, ba sëñ bi continuer am njàngam moo fi rasuul lay ñu bokk di jàng di ba jàng si di jàng si ba fajar si xotti ci ni ko sëñ Masamba Kan ne nettalee ci la ko sëñ bi joxañ joxañ ko joxañ ko yont bi nee na def ko wax na ko ba bale joxañ nag booba dama wax dëgg kii de mooy ma sàmmkat sama ñooñ la bokk sama sama ñooñ la bokk dalaan loolu laa doon xamal sëñ bi sëñ bi itam euh, ba mu noppi loolu la weesoo nag la sëñ ko woo woo yónni ko euh, ci ci mu génn dem bu mu déggee fekk permé la la melaatoon fa gisoon tam euh, kam gisoon toog man mook sëñ bi tam dem yoonam ci la ko sëñ bi doo ko feeñoo nag ne ko ndax xam kooku mu ne ko déedéet ko day mbàkke xaw ma ko mu ko ko mooy xel bëri moo tax si borom bi la ku yàlla bind moo tax ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga amoon ci moom ba ba ba tax ne ba tax nga ne daa war a jóg seeti waa penku bi eh, moom la moo tax ma indil koy ma indil ko fii eh, loolu nag eh, day tekki ne Siteu moo doon lu kenn xamut moo doon lu kenn xamut ndax tax eh, muy lu kenn xamut mooy lépp looy bëgg rek ci nag ci ronam dana ko jàppandi lool mu indi la ko na ko bëggee ci lu dengi dengi ndax eh, bi mu ko indi si masamakat ni indi la ko ngir eh, ay fan walla ay weer déedéet ak gudd la ko indi mu jàkkaaroo moom mu gis ko mu mu jaxaran bët ak bët loolu nag rasulullah sallallahu sa sa rasulullah sallallahu sallam ku ma dikkite madina ba mu ak si fekk sa sa sa tubaa euh, ka euh, war yoo xam ne mën na leneen loolu loola loolu day day luñ luñ teg suñu bët euh, moo tax nag ñu xam ne guddi gàmmu ginnaaw ci la ko rasulullah war na si yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi gàmmu kenn mënu ko kenn mënu ko xëcceeg yonent bi kenn mënu ko wute benn bis guddi bu si bi moo tax ñu tax ko ba ci ñaar fukki ak juróom-ñett eh, fas ko yéene eh, magal eh, ko daan def ay at yi weesu yëpp atam nii nag ñu tax mu taxaw ci ñaar fukki waaye ba ba tey gën gàmm yi mooy tegu xeer jumaa yi nga xam ne moo ñu fas yéene teg fii mu doon liggéeyal Rasulullah sallallahu fii mu doon liggéeyal Rasulullah sallallahu alayhi te jaar ko na Seexna Abdou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ko tewal defar jumaa ci talaata yi ci teg jumaa ñu dax ko ci araba ji ngir mu nekk dëppoo euh, tegu xeer wi dëpp màggal yi loolu moo sabab màggal yi waaw waaw waaw leen tënk rek ne euh, am nañu ab royuwaay euh, suñ tubaab nag jamono yu nekk képp ku ñu def am na comme lu booleel koo xam ne kii mooy doon sa royuwaay Eh, ndax jëbbalu moom suñu tubaab rek lañ koy def suñu tubaab rek lañ jëbbalu waaye nag eh, kam jaar na si njëbbal bu dont ne xamoo ko xamoo suñu tubaab xam nga kooka ci it dalay doy sëkk ci aw melokaanam ak jëfam ak jikkoom eh, ci nga nga nga nga nga nga nga nga nga dara ci moom tam loolu doy doy nga nga jàpp ko ba tax na kii muy boole muy sëñ Masamba Kanni Euh, mooy suñu euh, wasila di suñu sëriñ di suñu yaakaar euh, daf ko mat sëkk ba tax na lépp lu rek ci moom rek lu mu tuuti tuuti tuuti man mën nañ mën nañoo jàllale ëllëg ci ci karmo ci karmo Seexu Xadim ndax ñooñu ñëpp suñu ndam ak suñu bëgg mooy gis sëriñ Tuubaa rek ëllëg yomat xeemat ak war cey nag doon lu yomb nag mën ngaa am ndimbal mu dimbali la mën ngaa am xéewal mu xéewale la ba nga mucc ci pakk pakk yooyu yëpp waaye gi jëmm jëmm sëñ Tuubaa moom yombul yombul loolu ñu ñu ñu gis bëriwul eh, dañ ñoo ñaan daal nag bokk ci ñooña eh, loolu nag la koy may mooy eh, roy ci roykaay yi xam ne moom la boolee loon ngir nga roy ci ñoom ba mën a àgg ci ci ci fa fa ñooñu àgg ndax ñoo fay àgg moom dañuy wax am na suñu Tuubaa suñu ba suñu Tuubaa yóbbu lañ si borom ku suñu Tuubaa yóbbu si borom nag bul eh, xam nga ne kon kala kala suñu Tuubaa yóbbu na na lan mooy mooy sa borom ba nga demee suñu Tuubaa fekkaat loolu nag mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy doxee bi eh, kenn ko doxe ci loolu loolu nam nag eh, ma ngaa da yéen ni ndimbal dem waaye nag gis ko moom ba ko moom ah góoma ne dana la yomb yàlla ñu bal yàlla bal ci ñooy nag bi jeexee di Moustapha waaw. yi kon ñu fii ci kër ngi fii ci pàkk yi nga xamante ne ci pàkk Serigne Touba yi la fii ci dëkk bu sell bi di Touba. mu di daarul xadim di dëkk boo xamante ne ku ko xaw ku ko wax tudd ma Massamba Kanni Bousso mi nga xamante ne moo ko sanc du dëkk boo xamante ne dëkkub cosaan la waaye dëkk la boo xam ne dëkkub barke la ñu fàttali ko jëmm ju màgg jooju na nga xamante ne moom mooy Serigne Massamba Kandi Bousso mboolem sër yëpp ñi nga xamante ne cosaanoo nañ ci euh, Serigne Massamba Kandi euh, nekk fii ci Daarul Xaddim di ko màggal di fàttaliku seen maam ju sell joojee ñu dikk ci euh, jëmm joo xamante ne kenn ci njaboot gi muy Serigne Fallou Bousso ñu fekk ko ci kër gi mu feggoo ak Serigne Cheikhouna Bousso Kéemaan di suñu xarit xam naa dañuy jox kàddu gi rek Serigne Fallou mu yëkkati ay kàddu kàddu nuyoo ñu doog a dugg ci laaj ak asalaamaaleykum mbokk yi ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaara bu baax di leen baalu xaq te baal xaq ñëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom def ko gudd fan lool ak wér noonu itam lañ koy ñaanale sëriñ Mouhamadul Fadal Bousso xalifatu sëriñ Massamba Kanni suñu borom defal ko gudd fan ak wér te mot li dama ànd ko ak njaboot gi yëpp ak taalib bi di leen nuyu itam si Moustapha ak mboolem ñi nga àndal ñëpp nga xam ni bi bis bi dëgmalee ba léegi fuñ toll ñu ko ànd ak yéen di leen ci ndokkeel ndax seen bisa tey wane ngeen ko di ci ñaanal yëpp ja ñëpp ñëpp rek suñ borom defal leen ci jàmm te defal leen ci mboolem luñ ciy roote ci aw yiw suñ borom boole ñu ko ñun jullit ñëpp jërëjëf Serigne Moustapha jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi nuyu baax a baax euh, sunu maam jooju nga tudd léegi muy Serigne Fall bu sa cumbuleen ñu koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm ak tawfeex di ñaan ak fanu gudd xanaa rek day laaj bi njëkk bi moom mooy euh, ñu fàttali lenn ci jukkoy Serigne Massamba Kanni Bousso ndax ñu mën cee jëriñu waaw Serigne Moustapha ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ndokkeelaat di wax ne tudd nga koo xam ne nii ku mat a fàttaliku la tey loolu rek mooy solos bis bi fàttaliku ko xool lan mooy ay jikkoom xool lan moo doon aw doxinam xam lan mooy nekkoon ay melokaanam njariñ yam làmb woon ba tax mu am la mu am loolu rek mooy solos bis bi kon yaakaar naa ku fi ñëw yàlla na nga yóbbaale ci astuut loo xam ne da nga ko mën a jàpp jëm ko caa royee bu fekkente ne lam noo ko lépp itam amoo ko boo ci jëlee benn rek bu soobee yàlla lam amoon te mayoya suñ borom defale ci lu kawe njort suñ Masamba Kanni kenn la ci njabootuk sëriñ bu soobee waaye nag di kenn itam ci télé bi Serigne Touba yi nekkoon mbokkum Serigne Touba moo ko jege lool nekkoon itam ab jaamukatu yàlla nekkoon boroom xam-xam nekkoon itam koo xam ne ku nangu woon liggéey la te daan ko def ci bu baax a baax daan ko jaar itam ca anam yi wa nga moo moo gën a kawe aw jaarin loole itam ba mu xamee loolu yëpp li mu bokk ak sëñ bi xam-xam bu bari baag ragal yàlla ga teewul nag mu nekkoon teel bi Sëñ moo gënoon lu mu mën a am. Mm-hmm. loolee itam mooy solos bis bi fii ñu ko fekk si. ci ndigal la ko fi sàncee ndigal Sëriñ Tuubaa la. Mm-hmm. mu woon ko ak ay doo ak njabootam ak kenn ci ak ci ay rakkam. Mm-hmm. ndigal loolu itam lam ko fa digaloon weesul woon jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla waaye nag di liggéey Sëriñ Tuubaa yor fi njaboot gi di leen fi yar di leen jàngal liggéey di leen teg ci siraatal mustaqim kon loolu jàll na buñ dikkee ñu xam lan moo nekkoon aw melokaanam melokaanam nag buñ ko waxee mooy murid saadix la woon murid saadix nag julit xàqan da koo jiitu ba noppi murid saadix door a ñëw taalibu Sëñ Tuubaa bu kawe bu nekkoon boo xam ne desutoon ginnaaw ci keppaaru Sëñ Tuubaa waaye nag nekkoon ko xam ne boromu cër la ndax Sëñ Tuubaa fonkoon na ko lool fonkeel ga mooy sababu bis bii ci li ko wane woon yonent bi sallallahu alayhi wa bis boobee la ñuy wéy di ko di ko fàttalikoo sëñ Massamba Kanni kon kooku ak pëstéefam mm-hmm. ak yitteem yu kawe waaye nekkoon ku jàmbaar ci lislaam moo taxoon Serigne Touba fonk ba jël la mu gën a fonk ka gën a nekk ab xaritam nekkoon sëriñam mm-hmm. muy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu woo ko terale ko wan ko ko ci uh, gàmmu moo taxoon ñu jàppoon weer yu ni saa yu ñu fi accès muy ñaar fan juróom-ñett yi mm-hmm. ji mu tamee ñaar fan ak juróom-ñeent yi ngir tegu xeer bi mool mooy sababu ñu puus ko tuuti rek waaye ci lañ jàppoon ñaar fan ak juróom-ñett saa yu desee te ñuy fàttaliku suñu Masamba Kan ni ak jëfam yu rëy yooyee ak pëstéefam bu màgg boobee ak jikkoom yu kawe yooyee ba tax mu amoon la mu am ngir ñun ñu mën cee baaxantal tuuti rek ak mbokk taalibe bi nga xam ne dañ ko ànd ak ñoom macha allah ah, loolu am na solo muy kàddu yu am solo xanaa rek jëm ci dëkk bi di Daarul Xadim ndax gis nañ ne ah, ku fi ñëwoon daaw ñoo fi ren gis ne xam ne barke ngi fi ah, Daarul Xadim ndax am tolluwaayam ci biir jamono jege gim jege Touba loolu moom xéwal la waaye tamit li ñu warloo ak Daarul Xadim ndax def nañ ko ci lu jëm ci wàllum luy courant bi na wala loo xamante ni yéen xëy na ba ngeen ko leen ci jàppale ngeen mu am ci dëkk bi. waaw sëriñ Moustapha li nga laaj lu am solo la Daarul Xadim moom ku fi ñëw daaw hmm. ñëw fi ren daa xam ne màgg na bu baax a baax sori waaye mu ci dëkk bi duñ na daa sori bi nekk ci biir la nekk waaye digganteem ak jumaa ji juróom-ñaari kilomètre net ci lay toll loolu itam ndigal sëñ Tuubaa woon moo leen woon ngeen soree ko kem distance bu toll nii loolu moo waraloon ñu tànn diggante bu toll nii soree ko noonu jumaa waaye loolu nga wax ne des na ko aajowoo moom fu ñu toll lañ koy gën a aajowoo ndax li fi nekk am na lu fi nekk naam mm-hmm. waaye itam ku ko dollit mu gën a ndax taalibe sëñ Touba yi njabootu sëñ Touba gi gën nañ fa yaatu nekk ci dëkkub sëñ Massamba Kane bii di fi liggéey sëriñ Touba te bar fi wet yoo xam ne ndox àggu fa bar fi wet yoo xam ne tam courant bi taxul mu la fa lool tey ñun ñii day dañ ci maam dañ ci sax am kersa ndax dëgg la dañoo jiitu ci dëkk bi barab bu nag ko fa jiitu bu ñu def courant ndox it foofu lay tàmbalee waaye day mel ne bu leeree ci ñi sa ginnaaw leerun mm. da nga ciy am loo naqar lool ndax bu la ñu gënal mm-hmm. bala ñoo leer ñun ñi suñ ginnaaw leer ba noppi ndax loolu la ñu suñ Masamba Kanni jàngaloon teel bi suñ tubaay yéene leen leen jàmm ci lépp luy njariñ buñ dikkee jox leen ko ba noppi door a séddu kon nag buñ sañoon lépp luñ ci mën a jàppale daal ci loo xam dana gën a yokk taaral dëkk bi ci poste de santé ak mhm. demukaayu dikkukaay ak ndox ak lépp loo xam ne ab dëkk dana ko aajowoo ay nit di ko jariñoo rek dëkk bi aajowoo na ko luñ ci gën a dolli itam incha allah dana gën a xeewale jërëjëf sëñ Fallou xam naa dama lay bàyyi rek nga yëkkati kàddu tàggatoo yi mooy kàddu yi ñuy di ñaanal ñëpp jàmm rek di wax ne mbooleem ko fi teew yàlla suñu borom faj say xaajo waaye itam borom bis bi la amoon ci aw yiw yàlla nañ ko bokk ak moom mbooleem ko fi teew it ñu ngi lay sant di la gërëm rawat na yéen ñi nga na ne yéen a yor wàllu euh, réseaux sociaux yi nga xam ne yéen ay jàllale li xew ci màggal gi yëpp di ko wan doomu aadama yi ngir lépp rek nit ñi gën cee mën a jariñu loolu nag wax dëgg yàlla am seen taxawaay rafet na ci mm-hmm. kawe na ci tey yëg nañ ko tey wax dëgg yàlla fi mu toll ñu tam ci ñun it kawe na ci lool ndax mbooleem lu ñu yëkkati rek ànd ngeen ci ak ñun ñi ngeen koy jàllee itam am solo la mm-hmm. ndax mbir mu baax it lu mu gën a yaatu gën a baax ndax ñi koy gën a ñoo ñi jariñoo gën a yaatu mm-hmm. kon ñu ngi leen ciy sant di leen ñaanal mbooleem fu jumtukaayu xaral di àgg seen jumtukaay yi àgg fu ko gën a kawe ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala amiin amiin Bousso amiin jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet yi nga xamante ne ñoo àndandoo fas yéene amal li nga xamante ne moom moo di màggal gi tey ah, di jiital ci nuyoo beeg ziar bi saahibul fadila wal wasila sëriñ Muntaqa Bachir Mbacke di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu noonu la ñuy nuyoo mboolem njabootu Serigne tubaa gi comme ni ngeen ko gisee si suba ba léegi ñu ngi fii ci tey ci pàkk bu tedd ci euh, njaboot gu sell di njabootu Serigne Massamba Kandi Bousso nga xamante ne ñu ngi fii ci Daarul Xadim di ko bis bi nga xamante ne bis bu am solo la ci yoonu murit muy bis bi nga xamante ne moom la Serigne tubaa wane la woon Serigne Massamba Kandi Bousso ak ngën ji mbindéef ci salallaahu alayhi wa sallam tey nag njaboot gi di ko màggal fii ci daarul xadim ñu ñëw tey fii ci kër Serigne naa bi ñu fi ñëwee a ah, fekk nañ fi mbooleem ay wëlëre waaye fekk nañ fi ay xarit fekk fi ay taalibee ak ñëpp ñoo xamante ne ay soppe lañ ñëw fi di ànd ak moom bis bi nga xamante ne mooy bis bu màgg bi ne di bisu maamam xam naa dañu jox Serigne Cheikhouna ah, Bousso mu nuyoo bu nuyoo pare ñu doo ko dugg ci laaj yi salaamaaleykum wa koo xam rek mi ngi dégg suñu ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen lañ jàkkaarlool ngir ngeen fas yéene jàllale kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali muy site internet yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ak ñoom muy Tawfekh TV Mbacke Kadior TV Leral TV ak Banat ak Mediaactu kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di rafetlu yéen nag seen taxawaay bi baax ci bis bi di ñaan suñu borom mu defal leen ak dolleeku ba ngeen yëg ko ci barkeb Cheikhul Khadim. jërëjëf sëñ Cheikhouna xanaa laaj bi rek moom mooy euh, sëriñ euh, jukko yi nga xamante ne moom la ñu xamoon euh, ci sëriñ Massamba Kanni Bousso nga fi ci lenn ngir ñu mën cee jëriñ. jërëjëf sëñ Massamba Kanni moom lañuy ñuy fàttaliku tey jii di ko ñaanal waaye di ko ci tàmbali tamit ab liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la. te mooy fas ko yéene tabaxal néegub yàlla fii ci dëkkam bi di Darou kon nag bu yàlla dogalee ngeen teew fii di laaj lenn ci ay jikkoom li nga xam ne moom lañu ci histoire jàngal te ñëpp dëppoo ci mooy ba ci jiitu moom ab jullit la woon jullit la woon boo xam ne meloon na na sun borom bëgg ab jullit mel ni ñaareel ba it ab taalibe la woon boo xam ne <clears throat> meloon na ne sëñ Tuubaa bëgg ab taalibe mel ni ndax sëriñ bi euh, faboon na ko def ko ci boppam ginnaaw ba mu doonee léppam mu yore jikko joo xam ne mbooleem ñi mu bokkaloon ëttub sëriñ Tuubaa xam nañ ko ci moom te seere nañ ko ci moom ndax euh, ba mu tollee ci jàng jàngal nañ ko ba mu tollee ci yarit yar nañ ko jikko yooyu nag moo na ci moom muy bëgg lu baax ak sax ci lu baax fu mu mën a nekk ci kaw suuf ak di yéene lu baax lim yéene boppam mu yéene ko ay bokkam euh, lim bañal boppam it mu bañal ko ay bokkam euh, ci fan yi rek maa ngi gis mbokk muy seere ci moom di wax ne euh, jago maanaam yamale sa lépp ci sa bopp loolu moom dalutoon sëriñ Masamba Kanni waaye li suñu borom tàgge woon sahabatu rasul it muy isaar boobu nga xam ne sa moroom da lay gënal sa bopp loolu da seetlu woon nañ ko ci jëmmam kon yoroon na jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon na jikkoy saxaaba yi yoroon na jikko cheikhul xadim kon loolu moom doy na sëkk ci ay jikko yoo xam ne warees na ko mën a royee ci moom ci buñ ko def fàttaliku ci di ko ñaanal ak di fàttaliku ak dundam kon daal ab jullit la woon boo xam ne ak njullitam matoon na sëkk te ñu jamonante moom ñëpp seere nañ ko ndax yitte ya nga xam ne moom la nit yàlla yi amoon moom la defoon mu yitteem na ko wax na ko yéen ñu gis ñam jamonoonte leen gis nañ jëf-jëf ba muy wax naan saraftu himmati li himmati rijal wa himmatu rijali wajhu sil jalal mooy sama yitte wëlbati naa ko jëme ko ci yitte nit yàlla yi te nit yàlla yi seen yitte mooy jëmi yàlla subhanahu wa taala kon loolu mooy euh, li nga xam ne ca la nekkoon moom doonoon nit taalibe Sëriñ Tuubaa boo xam ne nag bari nañ ñu daan seere ci moom ak taalibe ci mag ñi nga xam ne ñoo jamonoonteeg moom ginnaaw mag ñi jamonoonteeg moom nag ñoo daan seere ci te seere ci moom nu mu amee ak taalibe bi ci diggam ak bi loolu doy na sëkk seere sëriñ Seexuna xanaa ñuy demaat ci laaj ñaareel bi muy gis nañ ne ren màggal gi ñu ngi ciy amal li nga xamante ne moom mooy tegum xeer jëmee ci juma solo si nga xamante ne juma am na ko ak tamit euh, taalibe yi soññee gi jëmee ci fonk yi ñu a fonk jaamu yàlla jëmee ci mel julli ak ak li nga jëm yàllum juma juma xam nga mooy barab boo xam ne <clears throat> fa ñuy jaamoo yàlla bu ajjuma jotee ñu defa daje ngir julli fa ajjuma maanaam yowmul jumaa néeg boobu nag day néeg boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la njëkk a tabax kaw suuf bi mu jógee Màkka dem Madina lu tax mooy la ñuy def ci néeg ba moo tax yàlla sàkk ñu muy jaamu yàlla te jaamu yàlla julli moo ci gën a màgg euh, loolu nag bari na ay ayat quraan yu ciy soññee ak di ci wax di wax ci ay ngëneelam bari na ay ahadis nabawiya yoo xam ne it da ciy soññee ak di wax ci ay ngëneelam Euh, kii nga xam ne it moom la ñu yaakaar muy Cheikhul Xadim radiallahu anhu bari na ay misaal yu ñu ci jox ndax fépp fu mas a nekk rek day roy yonente bi alayhi salatu salaam ci léppam nga xam ne néegub yàlla la njëkk a taxawal ci bépp barab bu mën a nekk ba ci Touba gi bi mu ko sancee mbaar moom fi njëkk def dafa taxaw taxawaayu jàkka ba léegi it boo xoolee kër yi nga xam ne am na ko fi ñu di ko ko askanale ginnaawam la fi am waaye moom ci ak nekkam amu fi genn kër te booba moom muy néegam bii nga xam ne mi ngi fi tabax na ja nekk njëreem néeséer a tabax ji nekk Touba far suñu borom di dogal ba kon moom néegub yàlla loolu jiital ci lépp lu mën a doon kon nag ñun bu yàlla dogalee ñu nekk fi ba jamono laaj ñu war ko tabax ñu war a tabaxal néegub yàlla loolu duñ ko jàppee kiimaan waaye dañuy wax ne bu doon luy yeex dafa yeex ndax ma waroon a jiitu suñu kër yi ndax noonu la yonent bi daan doxee Cheikhul Khadim radiyallahu anhu noonu daan doxee jamono nag moo tëddee noo xam ne léegi lu bëree bëri soppiku na waaye nag tabax gii ñu ko bëgg a tabaxal jumaa fii ci dëkkam bi méngoo na ak dëkk bi lool ndax dëkk bi daf ko soxla ndax euh, bari na ginnaaw tey it fi nit ñi di bàyyi ko di julli ji soree na ak fa ñuy julli jee mu mel ne kon soxla nañ ñu am barab boo xam ne moo leen di gën a jege ngir wàccee leen yenn coono yi ànd ak nag mu doon boo xam ne it euh, bu loolu lépp amutoon it maanaam penc mi ak ni dëkk bi tëddee tabaxal fi yàlla ab néeg dafay jekk lool rawatina jumaa kon loolu moom ñu ngi ciy soññi mbokki jullit yëpp di leen ko yëgal di leen ko fàttali di wax néegub yàlla la boo xam ne nag dañoo euh, fas yéene lu ñu am def ca euh, ba ba ko sa borom di àggale di ñaan nag suñu borom defal ñu ca lu kawe njortu ci barkeb Cheikhul Khadim. macha allah laaj bu mujj bi rek xanaa mooy tolluwaayu dëkk bi nga wax nga xamante ne Daaru Khadim dem na ba nekk dëkk boo xamante ne man nañu ci biir Touba la nekk yeyoon na li nga xamante ne moo am ci ville yi am fi lu mel ne courant bu doy lu mel ne ndox mu doy ak yeneen ak yeneen ndax am soññu si côté bi. waaw euh, Daarul Khadim ab quartier la ci Touba. pencum Daaru Khadim ak jumaay Touba 7 kilomètres lay war a tollool. diggante bi xëttaloo soo fi gisee espace bu amut kër mbeddum 30 lay doon wala 120 mètres waaye lu dul loolu rek diggante bi moom xëttaloo na mbooloo it moo fi dëkk mbooloo mi fi dëkk it ay jullit lañ di taalibe Sëñ Tuubaa lépp loo xam ne ñu ngi koy am ci biir dëkk bii di Touba soxla nañ ko ni ko ñëpp soxlaa muy ndox mu doy sëkk muy courant bu doy sëkk ndox nag mel na ni moom jafe-jafeem dañ ko ñu ngi koy waaj a am xamuñu nag luy sabab bi waaye daal ñetti yi jàpp ñeent mel na ne ñi ngi waaj am jafe-jafe ndox te ba fi Serigne Abdoul Ahad defee forage bi ba fii ñu koy waxee bokk na ci forage yi gën mag yi gën a am doole ndox mu neex sax lay ron léegi nag ndox mi xamuñ mu ci xew soppeeku na ñaaral ba néew na doole ndax bari na gox yoo xam ne dañuy am ndox te ci forage su Daaru Xadim bi lañ lañ lañ branché te ñu dëkk biir Daaru Xadim mënuñu am ndox loolu nag euh, xam naa mbir la moo xam ne buñ demee ba ca biir su fekkente ne jëfi doomu aadama la yoo xam ne da koy jëf di bu feeñee dana am yaraanga bu dee luñ koy def loo it koy def loo bu feeñee dana am yaraanga ndax xañ ndox nit moom kooku ki ne ci guerre sax sañu ko waxuma la nag jullit boo xam ne bu amee ndox doyewu ko lenn lu dul jëfandikoo ko ngir mën a jaamu yàlla soxla nañ ko soxla nañ courant bu doy sëkk nag wax dëgg yàlla yooyu moom moom luñ ci mën a am rek moom ni ko ñëpp soxla soxla nañ ay fajukaay lépp lu doomu aadama di soxla rek ngir mën a stabilité ci digganteem ak boromam ak ci ak dundam dëkk bi soxla na ko. kon mbokk yi Serigne Cheikhouna Bousso la ñu toogal ma bàyyi rek s bi kàddu tàggatoo ndax xam naa ne tey gan ñi ñu ngi lay xaar Euh, ak ñi nga xamante ne ñooy wëlëre yi lan mooy kàddu yi nga xam ne nga tàggatoo. waaw kàddu yi de mooy di sant mbooloo mi nga xam ne woo nañ leen ñu wuy si di ñaan bis bii nga xam ne dañ ciy fàttaliku bis bu màgg bu doxoon diggante si Massamba Kanni ak Cheikhul Khadim ci weeru gàmm ñu wax ne daf ko wanoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu di fàttaliku bis boobu ñu ngi ñaan lépp lu ci suñu borom def ci barke ak yiw mu boole ñu ko képp koo xam ne teg nga sa tànk wala nga tàbbal fi sa sa jëf. wala nga amoon yéene teew te teewoo di ñaan nag euh, ñu yàgg ko teewe waaye di leen santaat yi ñi nga xam ne it ginnaaw yàlla ku yëg bis bi yéen tax mu yëg ko ku gis li fi xew it wala mu xam ko yéen tax mu gis ko yéen tax mu dégg ko kon yéen ñu ngi leen di sant di leen ñaanalaat suñu borom dafa leen lu kawe seen jot ci yëngu bi nga xam ne yéen a ko yëngu